interpellé ba pare dafa am loo xam ne dañu leen koy yëgal naam ñàkkul ne ñenn ñi nga xam ne yitteel na leen dem nañ xool ko démb délégation dafa demoon seeti ay kilifa préfet yeeg ñeneen ñi diré dirigé ko par suñu directeur de campagne bi Cheikh jaw ànd ak équipe tekki bi ñoom mbay ngoom ak ñoom ñëpp ñu dem laajte saytu lan moo nekk ci problème mu carte yi bi ñu laajtee loolu ñu xamal nañu ne sur les quatre maanaam carte yi nga xam ne maanaam waroon nañ koo distribuer quatre-vingts cartes yi quatre-vingts pour cent des cartes yëpp benn distribuer wuñ ko maanaam téeméer boo jël ñaar fukki ya lañ distribuer ci lu toll ci plus de trois 3300 nouveaux inscrits nekk primo votant ñoo xam ne bëgg nañ xar kanamu Kaolack soppeeku mu jaral leen ñu demaat inscrire ci liste yi loolu su ma juumul monsieur le chargé des élections loolu mi ngi toll ci daanaka mën nañu wax ne cinq pour cent du de l'électorat loolu ce n'est pas négligeable pour cent électorat bu nekkee distribué wuñ ko loolu am na mën a am influence sur les votes kon nag ñu leen di ñaan ñu distribuer loolu noonu nu mu gën a gaawee ndax 800 dong lañ ci distribuer ci li ma leen wax nii ci en un mois de distribution 800 moom ci un mois de distribution loolu moom xanaa mooy ña daanaka ay fukk ñaar fukk la ñuy déposé par euh, la ñuy kii par par jour loolu doy na ci carte yi koo ci woo on a des preuves bu ñu wootee au niveau de Sénat woote au niveau du ministère dañ nañu carte yëpp ñu ngi fii carte yëpp yegg si ne ñoom bu ñu la waxee ñoom ñu ne ñu carte yi yoruñu ko waa carte yi fu mu ne xanaa doone ma diggante ndakaaru ak Kaolack la la tàkk munul nekk depuis un mois ñu ñuy wax même même histoire loolu nag dañ ciy interpeller l'opinion nationale et internationale pour ñu wax ak ñi ñu war a waxal ñu bàyyi rétention de carte yi ñuy def à dix jours nag loolu dafa jot ñu interpeller le DAF la direction des élections la commission de distribution des cartes pour ñu prendre seeni responsabilité trop c'est trop coow am na fu muy yegg kilifa da koy regle day wax ñi mu war a waxal xamal leen que ne lii ngeen di def baaxul bu mérité ay sanctions ñu def ko